dama bëgg mu mu ñu xam ne tabatin ñëw na tey ngeen dee tabatin ñëw na tey ngeen dee dama ko di parni pas booy ñaa mais tabatin ñëw na tey ngeen dee tey ngeen dee tabatin ñëw na salaamaaleykum suñu mbokk internet su Dakar Net dañu kontaan bu baax baax di ànd ak yéen seen rubrique bi nga xamante ni mi ngi tudd reportage tey ngeen ci ànd ak Ouzin tey ñu war a waxtaane lamb ji li ko waral mooy xam ngeen ni ki nga xamante ni mooy Boy Niang ak ki nga xamante ni mooy Tapha Tine dañ doon bëre fële ci arène nationale ki nga xamante ni mooy Pape Thialis la ñu ko daane maanaam Tapha jamono ji ñuy wax yow moom moo gàddu victoire bi ngi fii nga xamante ni mooy Pàkk Lambaay ku wax wax Bawal ku wax Bawal wax li nga xamante ni moom mooy Tapha Tine pour cent Bawal bi la ñu ñëw nemmeeku leen waxtaan ak ñoom xool ñoom naka la ñu gisee lamb ji jée ñu wax ak gaay léegi-léegi boo gisee sax euh, ñoom ñi ngi taxaw jàmbaar maa ngi lay nuyu. waaw ah, ñu ngi lay fay sëñ bi. tur bi naka la. Xaadim Seen. Xaadim daal ni ñu ko gisee macha allah ndax li ñu soxla woon moom la ñu tafaatin indil ndax bëre daa am loolu luñ ko baaxoo ci bawal ndax ku wax Njugatin wax Serigne Ndiaye wax euh, Salloo wax Mbaye Diouf kon bawal lépp ay mbër la te bu nay wax supporter bawal a tax ñuy wax ndax mooy pàkku Lamine Gueye ñun ñoo jënd bi yu seer ñooy may mbër yi ñun Baol Baol ñooy pré amateurs yi nga xam na ñoom ñun ñoo war a encadrement Tapha Tine te ni ñu ko encadré macha allah leen ko sant lépp bi mu ñëwee def na ko ndax dafa ñëw ëmb booy bi gauche ëmb ko droite fu mu fu mu ñëw mu tëmbaq ko fa xam nga waa Pikine nag danoo baaxoo surtout ma booy ñaa wax la man du bëre bi mu duggee ci luur yi ba léegi amul fu maw dafa dem ji kee euh, noonu na def te mu ñëw Tapha Tine di daw lu muy daw moom moo nekkoon ba arbitre bi tëjee di nga xam ne mënoo bëre dinaa la corriger kon moom démb xanaa ñun dañ doon yoon na ko dañ lay corriger normal. Tapha Tine ñun ñun waa boole yëpp comme ça di mobiliser woo démb buñ ko yàggee def incha allah rabbi yàlla mën na koy may ay ndam yu bari daal parce que démb laa mi dafa doon lamb capital boo xam ne Tapha Tine su ko pertee rek day yàq lu lu lu bari ci ci ci yoonu lambam quoi mais nag euh, adversaire yi bari na parce que euh, combat Ama Baldé euh, Modou Lo ñaar foofoo noonu ku daana ku daan yëpp mën na mën na mën na bëre yow yoon lamb la. waaw léegi en même temps tamit euh, lambi gay Balla Gaye Bombardier foofu tamit am na fa adversaire maanaam ñaari combat yëpp saa bu teqali ko moom dina dina xam yoonu lambam fi mu jëm daal. mbëri kenn ku ne ànd nga ak bokk mais ah. Sapo euh, à bool wool yëpp moom. mobilisation bi ñu def moom wax dëgg yàlla Tapha Tine ñëw ñu ko am ci làmb. Ah, am na ñuy wax loo xam sax ñoom ñu ngi wax mais boo gisee 100 pour cent Pikine bi loolu moom moo mobilisation yu bëri tey jii ngay gis nii loolu moo ko génnee 100 pour cent Pikine laa dëkk. am na fi vingt ans vingt deux ans mais nag je bool-bool et fier de l'être bool-bool 100 euh, pour cent Pikine boobu moo jur 100 pour cent parcelle 100 pour cent Guédiawaye ba jut 100 pour cent bool bi instant moo tax bool-bool yëpp mobilisé wu topp ci ginnaaw Tapha Tine te fas ko jàppale nag ba keroog mu jël roi des armes rek yóbbu ko reefan bool-bool li dañ koo a def mobilisé bi dañ koo yéex a def wax dëgg yàlla suñu borom parce que Tapha Tine may lox gars yi daanu te yaakaar naa bu day yeew booy taan ñu la gën a yeew ñu ëpp mentalité yaa ngi dégg bu baax a baax. nga ne bu dee naxante bool bool yi. naxante naxante suñu la fekk baax ñu dañuy xëy di naxante ba jant bi so parce que Serap Fall dañoo muus. ñan ñoo muus. bool bool dañoo muus. dafa lu wér leen di booñaa jamonoy gartombe la ko ndil. jamonoy la gartombe. déedéet da nga koy la. gartombe la ko ndil. lii loolu. mooy bu ñu daa football ay ndóof ak ay samp jël ay prier mooy boo doonee si géew bi ñu lay jàpp ak xëcc. dafa dama lay dóor affaire affaire dóorante laal ragal du ko def barke Serigne Touba Mbacke ñu xamante ne bu baax xam nañ ki ñu yor tamit encore. ñu dañoo bëgg mu taxaw ci digg géew bi ñu duma ko yenn ko jébal koy bokkam ñun dañoo ndax waa Pikine li ñu wax ndax dañoo gis Ama Baldé bi mu ñëwee am lu mu def tafaatin Pikine yaakaar na ci loolu la ñuy dellu si te boobu ñu ngi nax seen bopp fii nii nag ñun ñu ngi taxaw di xaar Ama Baldé Modou Lô ndax ñun roi des la lañ soxla li ma ci gën a kontaan sax Salloo bi mu ñëwee conseil ko ma xam ne tey jii bool bool yëpp si si pare 100 pour cent bool la ne di amul promoteur amul kenn te léegi ñu ngi wax ak mu gën a yokk gën a déglu bool bool. parce que Tapha ngi lay seetaan boo amoon loo koy conseillé nga koy conseillé. ma koy ko fi dafa mën a bëri dafa mën a xeex. ki daw kay treize minutes nga koy daw boo ñaaree mu daw àgg na fi nangal ma fenn wàcc suñu dëkk ñun gannaaw bu wàccee dañuy jënd mbir fekk suñu dëkk parce parce que lan doo dem amul luy ragal ba ak Serigne Touba boo ñaaree ma doon daw treize minutes la daw yàlla xam na ko ñuy gis làmb jëpp xam ne Tapha parce que boo ñaa poids mi wàññi pour daw yee tax mu wàññi ko rek mais su disoon yàlla xam dafa ko boo ñaa dafa bëggoon loxo droite bi jóg mu jëm ko fël soit wër ko ndoom wala takk ko daal moo tax yoon Siteu kenn du ko nax ñaari yoon ah bal mu xam loolu ko di boo ñaa lu tax laal los mu daw génn saako fekk na ay Bombardier loo ko génn lamb Elton tamit loo tax mu bàyyi lamb tax muy nangu mu nangu ko

parce que contre la de Guiers poids bu bari bi mu andi dafa sonn trop mais man li ma jàngal tamit moom Boy Niang dafa wàññi poids trop ci Tapha Tine loolu dèjà baaxul ci moom tamit mu wàññi poids ba pare moom njëkk a sonn Tapha Tine ci biir combat a bëre dafa mën a xeex gars yi nag bëre bi leen gën a fonk ni xeex bi xeex bi leen gën a fësal nag ni bëre bi ñëpp da a da leen a ku plaqué Abdou Diouf plaqué Elton. mboot Yékini Senior mboot Yékini Senior. mboot Yékini Senior deux fois Yékini Senior da koo jëkk a yëkkati ba ci kaw bii mu ñëwaat ne ko bi ma lay daan moo gën a ñaaw la nga ko wax barki démb booy ñaaw booy ñaaw moo tax mu daw combat bi du bëri ci ñun ci digg géew bi langal doon bëri pour Tapha Tine dafa engagé ko mu fakkaka ci saako te ñun duñ bëri loolu romb nañ foofu Boy Niang euh, li tax mu perte lamb ji man jàpp naa ne euh, li mu waroon def lépp def na ko kenn ko ne tamit dafa am say limite fu mu yem quoi Boy Niang bi mu ñëwee ci lamb nekk na ci lamb ji dugg na ci lamb ji Moustapha tamit ñëw na nekk na ci lamb dugg na ci lamb ji mais seen première confrontation gi xam na ne moom mënul def ci gan gi dara moo tax daal moom loolu moo moo moom moo nekk ci bopp bi ba mu ñàkk làmb ji daal parce que wóolu gan jàpp ko ci biir géew bi parce que gan bu ko jàppan ci biir géew bi rek mën naa jeex foofa mais da koy bëriloo jëm ci saako yi nga xam du ma ne moom du ma jël Bombardier Balla Gaye ah, lu tax ah bal xaar mu daan bom wala mu daan ah, ah eh, lu tax muy daan moo loo sama bëgg-bëgg laa si mu ah Balla tamit laa ci bool ak Pikine kon. kenn laa faral de for man faral ma Pikine de su ma la paree Pikine dama dama bokk AC Pikine mais bokk ma si bool laa faral waaw tabaat nag boo tabaat nag ah, ah Balla bu ñu bëree dama njibbi rëkk ba man réew ma wala tabaat ñoo bokk benn farax bi yoo xam ndox amul lu may ragal si moom sama waale sama xarit la. waaw Moussa li ma koy conseillé mooy mu yokk entraînement yi waaw gën a déggoowaat ak mbokk yi waaw ñim daa àndal ñëpp mu dem tamit tàllal leen loxo yi. Ah, suñu borom maanaam gën di ko may ay ndam ay ndami ndami ndam ban yóbbu roi des arènes bool reefan tabaat dañ koo samp carrément bool bool loo jóg maire yeeg paa yeeg seen dërëm seen ñaar dërëm jox ko tabaat incha allah lépp lañ def dañ ko pare pour maa xam jël roi bi ko réewa réew maawo reefan bawal lambaay baw ñu benn dëkk gox yëpp bu amoon lu nu gënoon moom sawaay da koy door ba noonu door mu daanu rek lañ soxloon billaahi mais dóor na ko mais daanuwul waaw mais danoo bëggoon mu daanu billaahi daa daa daa ruux combat bi bu taxawoon dóor ko mu daanu de ah noonu la demee de. xam nga Boña dafa doon bagaar mais ñun lu ñu gën a mooy ñu dóor mu daanu na yàlla loolu léegi lañ bëgg mu dóor ko mu daanu maa ko mu dóor ko si saa dafa daw rek mais billaahi lu métti ko indi loolu. billaahi voilà parce que Seydina Mohamed mais ñu ngi koy gën a na gën a encour na gën a kii rek defarwaat. loolu laa a